9h30 ci rajo Futur Média mbokk yi ñoo ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax dellu am mbégte àndaat ak yéen ci suñu journal fait divers mu di xalaas fii ci RFM xalaas lundi ba vendredi ñu ci ànd ak euh, Abba No Stress di ci ànd ak Mamadou Ndoye Bane di ci ànd ak euh, L'Homme Passe Partout Euh, Abba nag moom ku ne xam na ni mu baaxoo vendredi moo tax jarul di dellu si waat waaye Ndoye Bane mi ngi fi di ànd ak ñun ci xalaas Ndoye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay bëggee jaajëf waay di leen ziar bu ziar passe partout di ziar auditeurs yi leen ñaanal jàmm yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi. ku bëgg yàlla na la yàlla may jàmm ku bëggul jàmm yàlla na hmm. la nga xam li jàmm yi jariñ rek nga ñàkk jàmm. Hmm. kon boo ku yeew na nga ñaan jàmm. léegi man ban. waaw dama laa bëgg laaj ban lii nga sol nii foo ko teg te teg ko ci moom samay yére rek moom samay yére ko ci kanam tuuti. waa ah. dinaa dem ci page Instagram bu xalaas <laughs> l'officiel. waaw wan waa Sénégal li nga. li ma waaw mais ko fenn. ah li muy costume ensemble costume bu bëla. waaw teg ci chemise bu weex. waaw teg ci mbaxana mu bëla. waaw waaw daal di. <laughs> ay ay daal ay keroog yu kii yu yu yu waa. da ngay ñaan jàmm te doo jug ci safaan bi. waaw ah, lii ma lépp lu mu doon Ndiaye. xamatuñ looy niroon. waaw variant corona. variant mooy la. mooy xeetu corona bu bees bi nekk ci réew. corona jeexul ah. Ah, toogal jeex na. di na ci weneen fànn fànn. waaw yow fànn yi ñuy fànn bu ne ñu ngi koy expliquer yu gën xamul affaire jeex na. jeexul fenn mu yéen tey la ah, a ay. na passe partout maa ngi lay nuyu. Ndiaye maa ngi lay delloo ziar ngi lay nuyu di nuyu ban di nuyu auditeurs yeeg internet yëpp képp ku ñuy déglu bu baax a baax a baax. loolu na am na solo. Euh, Aliou Ba. Hmm. taal leen seen clim bi ngeen réglé ko sinon dañuy jugee ni studio bi de. ah hmm. mënoo nekk ci tàngaay ba pare kilim yi doxul. Hmm. ñu ko réglé waaw fu ñuy tàmbalee. fu ñuy tàmbalee. fu ñuy eggalee démb. ca ca ci sunu. wala ma dugg ci partenaire yi. waaw demal ba xam. demal ba xam. il partenaire buy jaay électroménager. Hmm. tàngaay bi xam nga ne du ma ko wéyee. waaw du yoon de. defar xanaa Mara Dieng yëgu ko. studio mënul ñàkk kii. Mara yëgu ko. ah. <laughs> sa waaj ku yëgu leen maa ko koy yëgal daal fi tàngaay daal du ma fi toogal kenn te du ko tey. Hmm. ñu tàmbalee ci partenaires yi ñuy gunge ci xalaas ak euh, établissement waa kër Serigne Touba Fall et mm-hmm. nga xamante ne ji ñoo ñu indil euh, gaamu vite fait gaamu vite fait di cuuraayu bant bi dàq yoo gaamu vite fait di pompe bi nga xamante ne ji bu la weñ sonalee wala mbóot bàyyoo utiliser ko gaamu vite fait mooy pâte dentifrice vite fait bi baax ci ay bëñ di leen ko sàmmal di ko weexal mais également di la bàyyil xeetu gémmiñ bu neex loolu mooy pâte dentifrice vite fait boo dem boo laajtee pâte dentifrice vite fait am ko neex naa xàmmee couleur vite fait la yor mu di bleu jaune ak rouge ba noppi ñu bind ci vite fait mm. am na brosse à dents vite fait bu muy àndal ci ci ci ci format yépp muy souple am na ci euh, pompe am na ci tube am na également ci li nga xam ne moo di pomade baax lool ci yaram buy metti établissement waa kër Serigne Touba Fallé frère yi ko fi indi ngeen mën leen jotee ci 77 555 11 11 77 696 34 67 77 441 06 38 beneen partenaire ci xalaas mooy ñi nga xamante ne ji ñoo di. Euh, optique vision plus Sénégal borom lunette yu baax yi te garantie social tolaate te te yomb maa ngi leen doon wax ne seen consultation médical gratuite bi nga xam ne ñu ngi koy def ci Kër Mbay Fall ngir euh, mandargal ubbite boutique bi foofu noonu dañu koy wéyal wéyal ko ba suba ci samedi ji bu deux heures jotee fii ba booba képp ku fa dem dinañ la consulter gratuitement jox la ay conseil bu fekkente ne da nga cee soxla ay lunettes ñu jox la ko ci ay njëg yu xéewale loolu mooy euh, li nga xamante ne ji moom mooy euh, optique vision plus Sénégal képp ku ci bëgg ay leeral ngir xam nooy def ba jote ca ak ban heure yooyu yëpp daal mu di boutique bi Optique Vision plus Sénégal di ubbi ci Kër Mbaye Fall da ngay woote ci 33 864 79 84 33 864 79 84 beneen partenaire bu ñu fekk si ci xalaas moo di Wave euh, Wave di plateforme transfert d'argent boo xamante ne ji dafa ñëw rek ngir noppal waa Sénégal ak Wave dépôt wala retrait ñoo yam doo fay dara sooy fay facture courant wala ndox également doo fay dara amul benn frais mennum transfert maanaam yónnee xaalis mu ànd ak euh, frais te weesuwul un pour cent loolu mooy Wave euh, maanaam ci junni boo yónnee fukki dërëm nga ciy fay. Hmm. Euh, te loolu fépp la ci Sénégal Wave. Hmm. ci yeneen jamono dinaa la jox yeneen yi Wave ëndaale. les merveilles de Dior bokk ci. Dior sama xarit ba. mel na mi waaw ah. Dior Bakk. waa ah. déedéet. ah da ca war a bokk nag moom ci état bi lay communiquer. ah Dior ndax yi muy jaay ak yooyu. ah man na sama xarit la tey ma ko tee Dior. waaw yaa ma ko présenté. ah waaw ni sama xarit la. sama rakk ju baax la. waaw man de. sama rakk ju baax la man sama wàll jox naa ko de. moom ak euh, sama rakk daal la. waaw Dior. yow Ndoye. waaw suuf. man mii. waaw mi ngi sama xel de. non defoon nga ko kay. mooy sama mère ba Mbadou. <laughs> dama am bu nekk Thiès. sama mère mère Aïta. Mhm. mère Aïta sama maam la. waaye nag dafa woo passe partout ni ko bàyyi naa ndoy baan maa ngi ci yow ma ne passe jëlal day maire bi da lay dóor ma xam nga sunu maame rek sama séeri ku ñëw mun la sama séeri daal lay dóor mën na ko paas jëlal xam naa ni paas dina ma ko delloo. <laughs> dina ko delloo. wala ma wala ma après ko Ndiaye. ah man maire samay xarit la. ay maire boobu de su la jàngalee xaside rek day nga daanu de. Hmm. ay te kay kees la dëkk. xasida ci dënd bi. si loolu kay saay tàntal tàntal woo ko se léegi duma xaar ngeen ngeen ma koy paas maa koy jëlee sama bopp. ah ndaw cool na <laughs> ñu doxal. ah wax dama defe noonu da ngay doxal fee. Ndiaye. Uh-huh. ñu dem ci delluwaat Thiès. Mm-hmm. ci sunu ndem si yàlla si Cheikh mbay mi nga xam ne moo waral coow li foofu. Mm-hmm. defe kii mii xam na sax kanaal ba nga xam ne fa lañ ko dugaloon. Mm-hmm. dugal ko ci kanaal ba bari tëj ko. am na jarbaatam bu jàpp maa ngi la koy wax. jarbaat bi donc dañuy fàttali auditeurs yi mel ne man nga xam ne dañoo gaaw fàtte. waaw mooy Cheikh Mbaye benn taximan la bu war a toll ci soixante jàpp soixante cinq ans. Mhm. dafa réeroon ay mbokkam. Mhm. daanaka ñaari weer ñu di ko wër gisuñu ko. Mhm. ba benn jour benn quartier ci Thiès. seen canal bi bouché. ñu woo ONAS. ngir ñu defar ko bi ñu koy defar ci lañ ci gis nit. ñu génnee ko. Mm-hmm. woo mbokki mbay yi ñu ne kii seen doom la mm-hmm. ñu am kuñ ci jàpp ko xam ne ab jarbaatam la mm-hmm. jarbaat bi li tax ñu jàpp ko mooy dafa am ñu Cheikh mbay moom bokk na ci matelas bi mu doon tëdd bokk na ci téléphone portable boo xam ne mark Itel la ñu fekk ko ci moom ci moom foofu la ñu téye ko jarbaat boobu noonu uh-huh. am na ay jamono wérul woon dafa amoon feebaru xel. Hmm. ba ex am na fu ñu ko hospitalisé woon. waaw ah. kayit yi nag yoraguñ ko woon ña nga yor l'enquête ba ña ngay enquête pour am vérifier est-ce que réellement kii wérul woon. Hmm. waaye daal bañ ko laajee. daal waxul loo xam ne nit ñi mën nañ caa jàpp néew ñu nag moom la. Hmm. enquête baa ngay wëy. waaye nañu def ba fekk ko ca kanaal ba. ak lañu nañu def ba xam ni moom la ak la ca xew lépp. ah ak liggéey ba ci police liggéey mm-hmm. ak famille bi ñenn ñi ni ñu xawee mere police ci ci ni jàpp ni daal dañoo dafa am tuuti négligence mm-hmm. euh, déglu ki doon wax démb ok Cheikh li ko dal mi ngi ko dal en plein ramadan ci weeru koor la ko dal ndax le 23 avril bi li xewee moo tombé nag troisième jour weeru koor ñu ngi um àllarba alxamis aljuma lii xew kon weeru koor la nekkoon liggéey na ba 22 heures ci la wàcc gaaru ci parking bi dem jox yaayam sëriñ ca dem dugg këram kon sax dugg na këram habituellement dara boobu la naan ci li doomam ak jabaram dara bu nekkoon néegam daan na ko lal bu fenaan weeru koor nag ba xëyee samedi bi kenn gisul seex kenn amul trace yu seex kon lu mën a xew la ko dal ca këram dara bam lañ ko lëmase dugal ko moom ci canal bi ndax nag ñi ko ko def ils sont venus wala ñu ko fa fekkalan loolu moom du ma ci benn yoon waaye a xew may la seex mi nu retrouvé moom lañ boole ak dara néegam retrouvé leen si ba kere ah, enquête bi aboutir ku ne sam xel moo lay may ndax fuñ ko ko defee waaye lu weer boobu mooy wàcc na ba dugg néegam ndax pièce oto yi mu daan liggéeyee bi gaaree oto bi pièce moom ma ngi ci néeg kon moo ko yóbbu ci néeg ba nuyu na yaayam kon bu pièce bi jógee ci oto bi dem ci biir néeg bi kon Cheikh ànd naa pièce am ba biir néegam ñi mu romb ci voisin yi tamit nuyu ni leen avant muy dugg këram ne leen sax na ngeen def ñoo ñoon salué ko Cheikh dugg këram le vendredi ci guddi bu ñu gisaat Cheikh nag fan ko def dara am ne fa loolu fa foofu laa yem ba kër enquête aboutir waaye xam naa ne Cheikh mii daal moo pièce otom ñoo bokk dugg ci kër gi bi Cheikh di génn pièce yaa ngi des ci néeg ba dara ba ci néeg ba ànd ak Cheikh dem ci canal bi waaye lu mën a xew canal boobu mënu faa dugal boppam ndax dañ koo tëjaat kon ki dugal si boppam kar si nekk si biir te canal bi xóot na plus de 3 et quelque du koo koy mën a tëjaat canal bi ba tax booba tey nit ñi di romb canal bi ak dafa tuur dafa ndax ñu waa ko ñëpp seen desi ñam yi ci kaw canal dañ koy sotti kéel di ñëw di ko fekk di ko lekk ak bëy yi kon fermé gi fermé waat wane ni loxo tëj na ko waaye loolu enquête moo koy indi man du ma ci avancé waaye daal li ma mën a leeral te man sañ saa yem te dafa yebit mooy daal Cheikh moom ak daraam bi newoon ci néegam lan nan bokkandoo benn barab bu leen fekk Cheikh moom ak pièce bi yoroon ci bi pièces yi ci biir néeg néeg bi lañ ko fekk kon Cheikh dugg la néegam ba teg fa pièce am fa ko daan teg. am na lu ñu fa gis yoo xam ne ma nga ca ñoom am na ñu fa saisir ba tax na jarbaatam ba newoon ci kër sax ko arrêté fi mu du ko téye ma nga ca ñoom. yéen fa gis ci fuy bi it ma nga ci ñoom comme que seen enquête boo ko léegut man du ma sori ci loolu du ma sori ci loolu mais ñoom daal fekk nañ fa yoonu am soupçon ci yooya ci ay jumtukaay téye nañ ko. kenn kam fa nekkoon képp muy jarbaatam xam moom moo nekkoon moom ci kër ga. police téye na euh, xale boobu ndax yan fekk ci moom ak yan gis néegam yooyu nag ci enquête bu jeexagut du ci ci dévoiler dara. ban quartier la ci Thièsati. jamono. Euh, canal ba. non canal yi en fait kii benn kii la benn réseau la. réseau réseau la boo xam ne ah, mais du kanaal du kanaal c'est-à-dire regard la. jamono yi ngay xar mat. waaw jamono yi may journalier. waaw liggéey naa ci regard yooyu. yow bañ koy tabax regard la yoo xamante ni dañuy dañuy dugal ay tuyaux ci suuf mooy tuyau PVC yi léegi bu ñu defee benn 300 mètres. Uh-huh. dafa benn regard. Uh-huh. comprendre nga. Uh-huh. regard boobu moom mooy filtre ndox yi ñu defaat yeneen tuyau mu continuer. secteur boobu nag foofu dafa xóot. regard yooyu ay 3 mètres 50 ba 4 mètres lay nekk. problème bi nag mooy regard boobu. comme li kii wax waa ji mënu faa dugal boppam. te kenn nit mënu ko faa te kese mënu koo tëjji benn nit mënu koo tëjji. boo xoolee même waa ONAS bu ñu koy tëjji am na ay weñ yu ñu utiliser. ubbi ko yombul tëj ko yombul ubbi ko yombul ko yombul. dugal fa nit it yombul te mënoo faa dugg pour tëj sa bopp si biir. à 3 mètres amul escalier amul dara. Hmm? mënul nekk. léegi nag bañ fa gisee bagage yi ñu fay gis ba pare dañoo woo jabar ji xam ku ci nekk sa jabara la gën a jege jabaru ki faat jabaru Cheikh mbay hmm. dara baag yére yaag yooyu ak doom yi déglu leen laaj. police maa ngi leen ko déclaré le 28 avril 2021 ma ne la 48 jours après ma déclaration ci la drame boobu xewee ci la canal bu bouché 48 jours après ci la canal bu bouché ONAS ubbi ko gis ci loxo nit ci ñoom ñoo avisé police ñoom ñoo woo police woo sapeur ñoom la fa nekkoon ci la ma ko ma xam woo na ma kaay yow mi doon seet Cheikh Mbaye am na lu xew fii ci buntu këram ci koñam ci ngoon gi. génn bu njëkk bi loxo bi rek a génn benn loxo génn loxo bu jeex moo génn moom la président jël ko ak chapeur ma ànd na ñoon dem police bi ñuy bi ñuy entendre di di auditionné sa ndax bi loolu génnee dafa génn walla dara bi ñu ko lëmase woon benn dara bi noonu ci biir canal bi ak benn benn ak benn saako ñu jël dara bi weer ko ci miir bi bi doom ji ñëwee ñu ne ko est-ce que xàmmee nga dara bi doom gi dara ji xàmmee naa ko dara bii xamee naa ko ñu ne ko kaay dem police jabar ji ñëw dugg commissaire won ko photo dara bi ne ko dara bi lan fekk mu nekkoon ci biir kan ci biir canal bi ak moom est-ce que xam dara bi jabar ji lan bi mën naa ko mayen sama borom kër ndax jabar ji dëkkul bokkuñu woon moo borom kër benn kër jabar ji mi ngi fii kër magam Madina Fall depuis trois ans ou plus fa la féete nekkul kër Cheikh mbay jabar ji mi ngi woon fii mooy nekkoon aawam mujj gi mu féete fii kër magam ne fi féete fi mu jël dara boobu may ko Cheikh Mbaye jëkkër ji dara boobu la reconnaître ne ñoom dara bi seen dara bu jëkkër la woon dara bu jëkkëram la woon doom ji reconnaître ko kon ñu xam ni cadavre bii ñu fekk fii cadavre Cheikh mbay la parce que dara bi ko enveloppé doom ji reconnaître ko comme seen man saw te ngeen di jàmm gën parce que orange indi na seen camion pour ñu gën koo vider aspiré ko pour mën a gis essence restant corps bi bi orange ñëwee ci ngoon gi ma ñëw fekk leen fa orange ñëw bi ñu koy aspiré di ko génnee ci leen génne parti yu bari ci moom waaye génn wàllu mbubb mi ak tubéy ji mbubb moomu bi nga xam ne yàlla dogal na dem naa ci àll bi laaj leen Cheikh lan la soloon le vendredi bi mujjee liggéey ñu may jox description bu moomu te mbubb moom xamee ndax daanaa ko fekk ak moom di ko sol ñëpp ànd maase seere ne mbubb mi mbubu seex Mbaye la. do fa la fekk jaww doom ji doom gi ne mbubb mi sama mbubbu papa la dëkku ne ni mbubb mi mbubbu Cheikh Mbaye la ñëpp ko xamee ci moom keroog nag bi loolu amee nag ci laa ne waa police Cheikh Mbaye bi nga doon seet fi may këram dama ne la man la 28 laa déclaré le 28 ba la 14 ça fait 48 jours yoo xam ni bi lii xewee la fi soog a dugg ñoom loolu la moo ma touché wax dëgg yàlla moo ma diis lool ndax bëgguma mu demee noonu ma sañoon bi leen ko déclaré rek ak porte bi mu am ñu war a déplacé ñoo xool li xew def seen seen science def seen li li leen affecté pour ñu def ko ak li demande pour ñu def ko suñ ko defan tey amaana tey jii yàlla moom dogal na mi dogal ma noppi waaye kon état bi du agsi fii je suis un fervent musulman nag damaa gëm sama imaan billaahi dogal yàlla dama ko nangu lool barke borom Tuubaa waaye nag sabablu bi sàmm ren delloo sabablu moo waral ñu ñu bañ a bàyyi àdduna rek ne lépp lépp teg ko ci bu ne am na sabab am na sabab. mi ngi noonu kon bokk ñu bàyyi la ca des enquêteurs yi continuer ci. yéen kay daanaka yëgale ngeen ko. waaw déet déet jàppoo. kii toog fi ñu wax affaire canal ak rigol ak rega rek. waaw ah des na lu bari ay tuyaux d'évacuation des na des na des na tey jii ku ko rey. Mhm. ñu ko dugal ca canal ba. Mhm. parce que kan nit ku dee de dafay diis. Mhm. jabaat bi jabaat bi aussi corpulence am par rapport ak nijaay ji nu mu toll. waaw mënu ko jënd moom kese. léegi nag bon est-ce que du association de malfaiteurs. li ngeen di njëkk a lijjanti mooy bokk na ci d'abord. waaw est-ce que voilà parce que léegi li jaaxal nit ñi daal mooy. Mhm. ki faatu. Mhm. téléphone am ban doon wér. Mhm. ci loxoy jarbaat bi lañ ko fekk. muy téléphone marque Itel. te waa ji biñ ko laajee foo jëlee téléphone bi. dañuy du koo jënd ca marché benn marché bu ne ci Thiès xam nga li ngeen di jiital say wax mooy waa ji tolloon nay jamono dafa tàggoon ak sagom voilà hmm. ay jamono ki ñu jàpp nii waaw kon mais moom film nii. Euh, euh, déet moom kay bu ñu conclure. waaw loolu la ñu wax li ñu ma wax laa léegi nag téléphone boobu est-ce que coïncidence la. Hmm. est-ce que coïncidence boobu mën na nekk wala mënta nekk. koo bokkal nekk ñu faat ko di ko wër ay ay fan a ngi nii ñu koy wër gisuñu ko ñu ko gisee ñuy def enquête yow téléphone bi ñu doon wër ñu fekk ko ci say loxo laa ba mu doon tëdd ñu fekk ko fa nga doon tëdd téléphone bi ñu laaj la foo ko jëlee nga ni marché laa ko jëndee. loolu nag dañuy bàyyi nit ñi ñu. et puis am na am na ay forme de déclaration yoo xam ne bu dematee police. Hmm? war nañ ci def yenn yenn yenn yenn yenn yenn jéego yi. Hmm? parce que par exemple koo xamante ni. Hmm? amul benn problème amul feebaru xel. liggéey na wàcc na départ na buntu dépôt dem sampaate. dugg na këram teg na fa ay pièces otoom. déclaré nañ la ko. li muy liggéeyee pièces yi mi ngi ci biir néeg bi. saa di gën kon génnaatul. otoom fa mu gaara jëlewu ko fa. mun loo ko jot téléphone. xëy na bu police teeloon ñëw foofu. comme li waa bu ñu xoolee bu ñu fa gisee scène bu ñu koy dugg fii du ñu fekk corps bi nekk ci état décomposition bu avancé nii. gis nga suñu la déclaré par exemple adulte bu réer wala kii nii mu mel noonu suñu la ko déclaré fii li ko wër am na benn benn benn kii sax bu ñu wax loo xam ne li ko wër ci moom woo lool boppam moom nga wër a wër maanaam li ko li wër kër géeg lépp war nañ ko seet. Mm. fuuy ko bu baax a baax. bala ñuy bala ñuy bàyyi suñ ko mm. xëy na suñu fuuye woon diggante kër gi fooñ ko dugal sorentewul suñ ko fuuye woon bàyyi ci xel peut-être ñu am ñaaw njort ci waa ji ngeen dégg mu ne mu ñaaw la taxawaayu police waaye ba léegi déggu leen police de. non non non xam nga police du musa wax. mais ñun ñaawluwuñu keneen moom dañuy wax ne mais ñun dama ni man maay wax sama xelum bopp nañu suñu déclaré nit ku réer ci anam yu mel nii. Hmm. am na daal genre kii bu ñuy def boo xam ne kër gaa ngi nii li war kër gi yëpp. périmètre beeg jaxu yow yëpp war nañ koo seet. Hmm. ba pare xool ndax duñ ci am benn trace ak yooyu ak biir néeg bi téléphone am ak yooyu yëpp euh, parce que daal lii nii doy na waar ca koor ga ba hmm. nga réer. ñu fekk la nga dee ci biir canal pendant presque yàgg na. ñu doxal ci beneen yéeme na. njaay ku ci amati jëkkëru tubaab mu nekk bitim réew. muy ñëw senegal moom dong na nga ko batale soo ko batale wul dinañ ko détourné. Mm-hmm. maire bii. maanaam na nga ko dénkaane. ah déedéet xaw ma dénkaane xaw ma da wala nga ànd ak moom ñëw maire bii moom maire bi moog jëkkëram sëy nañu 40 ans. Mm-hmm. jëkkër ji tubaab. jóge fii ñëw Sénégal. jóge bitim réew ñëw Sénégal xam naa fi dox ay soxlaam ak yooyu benn xale bu ndaw ñu dudd 2000 ñii ni ko cas ñi cas kër ga ñi maanaam ñi tas compte ya ñi cas lépp paa bi fi mu ne nii xale bu jigéen bi jur dudd ay 2000 yi ruiné na famille bi paas loolu la maire bi wax. te en fait te maire bi nee na. Ah. d'abord ñu préciser ne. kii lañ def mariage mariage kii. benn jamono mun a game. waaw communauté de bien. paa bi jaay na këram ga ne France. Écosse jaay na këram ga ne Écosse. kër gi nekk Sénégal à Saint-Louis ndaw si fexe na ba jëli kayitu kër ga téye. te ah, xale bu jigéen boobu moom. te xale bu jigéen bi tubaab bi takk na ko. waaw mosu ñoo dem jàkka. mosu ñoo dem église. tubaab bi mosul dem kër mbokk xale bu jigéen bi mosul gis papa xale bu jigéen mosul gis yaayam. dañ leen ci may première partie li ci des ñu dencal leen ko te naan leen bon week-end ba déglul man la xaadam Diallo madame Semers maa ngi dëkk Ndar man sëtu njaay Ndiaye Mabey laa. maa ngi leen di woo ndax dafa am benn gel bu tudd Xadiba Si wala Maane Ba ndaw soosu nag man dama toog fii ci sama kër ma gis sama jëkkër alal ji mu amoon yépp di dem di dem di dem moom mu di ko nëbbu ndeke dafa tase gel bi ci benn. neenaay euh, ci benn euh, brioche dorée nee na moom ci boppam moo ko demande ndax pourquoi tu veux pas être ma femme ndaw si d'accord nee na mu takk ndaw si ndaw si nag moom xamul këram xamul fu mu dëkk waaye daal xam na ni si kaam mbaaw la dëkk bi mu ko defee sama jëkkër ni sama doom bu góor daal ni pëqat Joël Semence ni pëqat téléphone bi jël ko dëgg ko toj ko léegi bu mu ko tojee mënatul jot ndaw si ndaw si mu woo ko ci sama portable laaj ko ni ko dama bëgg nga yónnee ma këyitu kër gi ndax sama jabar d'accordul jaay na sunu kër fii en France jaay na këram gu day na château en Écosse jaay na këram Sénégal boobu nag boobu rekk a ci des léegi man dama doon ñaan dama soxla xale bi delloo sinu sunu këyitu kër ndax moom jël na li ma yoroon yépp lu ëpp deux million d'euros ci xaalisu waa ji ba pare daldi ka nax ni ka dama defoon accident euh, Lisbonne léegi dañ ma fay xaalis lebal ma 17 millions boo ma ko lebalee ah, boo ma ko lebalee dinaa la fay bu ma xaalis bi jotee léegi mu woo ko mu ne ka fay nañ ma jox nañ ma envoyé nañ ma xaalis bi mais mi ngi ci benn banque nee na banque bi dama war a signé def benn signature banque bi dama war a def benn signature pour mën a jot xaalis bi ma ne ko Steven kii dalay nax banque mënula envoyé xaalis ngay nga nga war a signé xaalis boobu ci banque bi pour mën ko jot loolu mënuta ne buñ la envoyé xaalis da nga koy jot te loolu da nga ni problème mu assurance la assurance bi fay nañ la mi ngi ci sa compte pourquoi doo ko jot mu ni xale bi naxati ka ni que dama bëgg nga yónnee ma sa signature ak benn procuration pour ma mën a dugal xaalis bi ci sa compte waaw man ak moom nag ñu ngi sëy am na 40 ans presque quarante ans ñaari at muy wàcc fii man nguur géem a jox kër nguur goo may jàppale nguur goo may defal lépp. waaw man ma amoon ma de ndax 40 du benn fan léegi damay ñaan rek ndimbal xale bi nañu delloo suñu xaalisu kër li mu lekk nag moo xam mook moom waaye suñu kayitu kër laa bëgg mu delloo suñu ko na mu def ba jël ko laa bëgg mu defaat ka ba delloo si ka yépp sur magu yi te li li non yu 40 ans de lu ko yëngal lu ne mbir la. nga xale bu jigéen bi ah, ki moo nangu jëkkëru maire bi. fii fii ba lëndi ah. parce que numéro bi ñu jox. depuis lool ñu ngi ciy woote jàllul. jàllul fii ba lundi. Hmm. ñoom nee nañu xadi xadi si. wala xadi ba wala xadi ja loes. wala maam dëkk Sika Mbaaw wala maam xadi si ba. dëkk Sika Mbaaw numéro bi jàllul. te ñoom dañoo bëgg a publier photom yi. parce que yor nañ ay photom taximaan bi mu yónni woon Saint-Louis. Mhm. ni ko tubaab bi moo wax na dem ca kër ga. mindaan bi jox ko këyitu kër yi. Mhm. mindaan ba jàngul mu woo jëkkëram. Mhm. jëkkër ji moo dem génne këyit yi ñu jox ko taximaan mu indil ko ko. ay ci mam Khady Siba. waaw yëglul waay. yéen na yëglu 150 17 17. kii kii kii dina jël jëkkëru keneen de du kii kii ma gis nii. non ah ay kii. ah yéen baax na non ma déglu ma nag Ndiaye mënoo fee yow ñu mënuma ñëw di indi xalaas nga yoru xalaas bu safe nii. <laughs> théâtre kat bu jonk ma. bii sañ naa génn euh, euh, lekk avance ba pare ñu bëri. non waa déglu ma rek xam nga lekk avance non non auditeur dinañ déglu ku lekk avance da ngaa war a bëri. waaw wala nga dellu na nga dëkk théâtre kat nga jongo ma nga lool car macha allah ku la gis sopp la waa ji gis la bëgg la avance la presque dix million quinze millions. ba pare nga nga encaissé pare ni ko sëyu ma. Eh. Ndiaye dañ ko war loolu xalaas la Ndiaye. Eh, eh. damaa léegi nag su dossier boobu soo ko mën a traité jox ma ko man jox ma ko man. jox ma woo ko. quinze millions nga jox ko jigéen. mi ba pare. dinaa ko lijjanti mais ah, quinze millions noo koy joxee jigéen. pour ngeen sëy mu mu ko. pare non dañ koy xalaas. dañ ko xalaas. ፕሬዚዳንት ዘላሪ ፍቅሪ ፕሬዚዳንት ቅሮ ነው በቆሎ ባራሳ ነገሩ ና ዞሮ ሪቨር ዞሮ ዞሮ ዞሮ ፕሬዚዳንት ዘላሪ አባላር ፕሬዚዳንት ፕሬዚዳንት ማር ቢሆን ወደ ሞሪ ሰርቪስ ይዛል ና ካቸ ደጋር ብላዶ ካብላ ሰርጋ ኮስሪ አሚን ነፍስ አድ ውስማ እንደ ቆሎ ባቆና ያ ግደ ላይ ላይ ለላ ምን ያክላር ዛ ዘፍ ሰዱ ጉቨርነር ጀነራል አፍሪክ ሳንታ ላይ ለፖር ሰራር ሰቆር ጃር ምን ነፍስ አንሷል ከት በብ ጅፍ ከት በደ ማብላ ደም ደም ዱዝ መክሳል ደም ደም ዱዝ ምኛም ፍኛ ማፍ ነው ካን ባም ኪ ወደ በከጀ ፕሬዚዳንት ኮከለው ነው ፈለ ወደ ሰላም አለይኩም ሰላም አለይኩም seetaan de tout Sénégal rek kon nag wax dëgg yàlla bu ñu waxee daf na war a yëggal ndax. ma mani président amul kudd ñun nit amul kudd waaw. mani salaamaaleykum. mani maaleykum salaam maa ngi lay dégg ah, Pape Baloum. salaamaaleykum. dama ni tey wax ju bari ji laa mënul lan moo waral sa woote. ah ci biir pale bi lu waral sa woote. lu waral sama woote. waaw. waaw dafa damaa soxla woon tey moom président ci jëmmi boppam laa bëgg a waxal. président de mënoo koo jot ndax léegi la génn. ah. léegi la génn mënoo koo jot. léegi de. génn. ah léegi la génn dama léegi la génn. mënoo koo jot ah, ba pare. déggoo ma ni ndékki ne la président. léegi la génn mënoo koo jot. ah waaw waaw waaw léegi de génn waaw kay léegi dafa am lu ma bëggoon a wax. Ah. waaw. Ah. yokk yokk yokk gii yokk mbir yi ceeb ku la wax président ko yokk. dama ne kan moo ni la président moom moo ko yokk. nga ni kan moo ni ma. kan moo ni nit ku dul dégg nag yées ci àdduna. nga ni kan moo ni ma dama ne kan moo la wax ni président moom mooy yokk yooyu. nga ni kan moo ma ni président moo ko yokk. waaw. ah dama koo dégg ci weewu béy léegi kan moo ko yokk. ci weewu béy wan weewu béy. dama koo fos ci weewu béy ñu ni président yokku na ceeb yokku na diw yokku na suukar léegi kan moo yokk keneen ku dul président. ah waa ñi moom seen ceeb ak seen diw bu yokk de am ñoo ko yokk. waaye ba dama ni ñi moom seen ceeb ak seen diw. bu yokk de am xëy na ñoom ñoo ko yokk. ah ñi moom seen ceeb ak seen diw waaye ci boutique di yokk dara. ah waaw waaw waaw waaw waaye président amul njëkk du ñu yokk mu ni leen wàññi leen. ah kay. <laughs> waaw léegi nu ma la waxtaan <laughs> ah sa nopp day ngi tane wax dëgg yàlla sa nopp yaa ngi tane yaa ngi may dégg tey de <laughs> léegi président damaa bëgg mu ni. waaw. ñëpp ñu yokk. mu ni leen nan wàññi ndax dund gi daa seet daa kor nit ñi wax dëgg yàlla kenn ku ne sonal ñi am na ñoo xam ne bu ñu bu ñu reeree duñu dékk waaye am na loo xam ne moom ànduma ci ci ci ci ñuy yokk yokk ko mooy lan mooy lan nee ma mooy lan mooy lan dégg ko nee mooy lan ngir yàlla bàyyi sa waxtu yi ci dama ni dégg naa la dama ni mooy lan ah waaw waaw mooy ñaar yi muy muy gerte caaf ak ak ak dugub ndax day tax ma ne bu mu yokk gerte caaf ak dugub gis nga gis bis bu fi bu fi yokkee gerte caaf tabax doo ci am ci réew lu tax. ndax maçon yi maçon bu yëyitul gerte caaf kooku dootoo am dootoo am envie dootu xale yi jigéen tabax te bu boobaa ku yor xaalis bëgg kër da nga ndax sa tabax dootu mën a ndax naa sa bu président ñëwee. ma bu président ñëwee danaa ko jàlle dégg naa sa bu baax a baax. bu bu yokkee. bu yokkee tamit dugub jigéen ñi danañ la ndax kenn dootu am wang ndax jaay fonde mut pertement boo ci amut woon a fit am ci sa koon yow gis nga bu ma bu ma la dégloo fii léegi wax fi leneen lu rëy ma ni ah, goye Babalu ah. votre correspondant na peut-être besoin pour le moment ba yaa prioritairement coupé naa la ah wang da laa neex ah <laughs> dëgg yaa yay de